parcelle moom yàgg nañoo man lii Sénégal yëpp saa wax fu ma jugee jug xam nga moo tax lii du buleen ci ñun xam nga di leen ñoom ñëpp parce que ñoo ngi bàyyi seen temps boobu ba léegi ñëw toog fii xam nga leen di sant di leen gërëm amuñu seen fay waaw nañu ñëpp yokk ñaan nag ba dimanche allah yàlla may ñu moom boo fay def pare ñëpp. lépp di war war nañ sax lépp lu doon def def nañ ko dañu ñaan yàlla rek mu may ñu fekke ba dimanche ak jàmm lamb di laaj incha allah ñu de ko. non non man du ma gan ci lamb ba ay yenn kàddu yi di ma déstabiliser xam loolu signature la woon rek mais signature du lamb jëf lamb jëf léegi mu ñëw wax bari jaratu ko incha allah. yooyu ay wax lamb la baaxoon naa ak ay wax mais loolu amul quoi dañuy wax. moom ca a waxam dëgg nee na combat bi bu yàggee yow yaay am moom mu gaaw mu yàq ci moom lay métti loolu warul chose la dem te li ko la dimanche incha allah indi ko amul sax benn wax comme ni may wax sànq rek nekk ci ma dem ci lamb lamb yëpp amul lu ndaw ci man yëpp combat yi mag la ci man te chroniquement gën leen ko téeméeri yoon supporters yi bëgg nañ ko de maa ngi leen bu téeméer yoon parce que loolu moo ma dese si làmb ba tax na lépp lu ñu war a def ñoo ngi koy def ñaan yàlla may ñu leen tal ak fekkee ba dimanche incha allah ñooñu jàpp ko si wax ñun làmb mooy suñu liggéey bu bureaucratie day dem bureau ñu ñëw ñu léegi nekk ci entraînement yi ba tax na comme may wax comme tax ñàkk combat moo ci am chaque jour ñoo ngi ci entraînement yi ndax moom lañ def métier baru tàggalee ba tax na su may supporté supporté comme seet ñëpp nañu ba suur suñu gisee dem lambu jë ku ne supporté seen mbër incha allah ñu ñëw parcelle bi ñu ci tam sport Kafrine la. Modou Lo monsieur nee na à chaque fois gis nañ ay combat wax revanche da koy jël est-ce que combat yi psychologiquement yaa ngi préparé ci revanche. day war a wute mais man xalaatuma sax. persévérance la pour man ma ko wax sax xalaatuma sax am ko dina amoon. ah c'est à deux ah c'est à deux. monsieur nee na boo taxawee dëgg sa bopp. ñaari fan nga ñëw ko bëre te bëre jàpp na dama doonal. tey wax lu ma c'est les mêmes questions. loolu naan yóbbu te gàllankoor bu làmb le 28 soir été incha allah le ñëpp ku ci bëri moo di incha allah loolu daal la ko soobee yàlla daal la ko mën naa ko. Abdoulaye bi dama ñu ko am léegi ñu ko doon dana xeex ak soo nekk fekk na fa lan nga koy tontu. amul lu ma koy tontu moom àndal nañu dal xelam àndal nañu dal si xel bi ma soree nañu ñaan yàlla rek may ñu fekk ñëpp ñëpp lépp ñaan yàlla incha allah. mais pression bi si yow la féetee violence yi am na seen defee amuñu combat bu am mu dul si suuf ñun combat yooyu benn amul pression ci dañuy def lu ñu war a def rek bàyyi leen ci loxo yàlla dem uti te ñun lu ñu war a def yëpp def nañ ko am njort bu rafet ni incha allah le 28 dañuy jàpp mu seen bu soxla yàlla. bëree ñu bëri bu xeexee ñu xeex ci moom incha allah loolu le 28 la koy ñàkkaat incha allah waxoon naa ko keroog si si le 28 juillet lay ñàkkaat couronne bi incha allah